sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin ayuha almushahiduna alkiram ayuha alikhwa wal akhawat nuhayyikum bittahiya alislamiya altayiba almubaraka alkarima wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa nuhanni'ukum bi munasabati هذا اليوم المبارك ألا وهو يوم الجمعة وندعو لكم في هذا اليوم التوفيق والسداد والصحة والعافية والنجاة في الدنيا والآخرة mbokku jullit yi mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala si li mu ñu defalati si xéewal te mooy ñu fekk sangu bés yi di bésu aljumaa ñu ngi ko si sant bu baax moom borom bi subhaanahu wa taala waaye di julli tey sëlmal si ngën ji bi ndeef sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye itam di leen ñaanal si sangu bés yi ñu nekk di bésu aljuma suñu borom subhaanahu wa taala defal leen wér yàlla defal leen tawfiq yàlla defal leen jàmm defal leen mucc adduna ak alaxira suñu borom sañ na ko mën na ko yal nañu ko yàlla boole defal ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziar bu baax fa tabaarakallahu macha allah kilifa diina yi nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala dogal ñu nekk ci réew mi ngànk li nga xamante ni ñoom ñoo di at-turuq ak fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom itam yàlla defal leen wér yàlla defal leen gudd fan bàyyi leen fu ñu yàgg fi lool ci daraja sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaanal bu baax ñi nga xam ne yàlla dafa dogal seen yaram sutaate yàlla may leen wér gu mat sëkk defal leen wér goo xamante ni du bàyyi benn tartar benn mettit waaye wala benn jàngoro itam waaye balaa ñuy dugg ci li nga xam ne fa tabarakallahu moom la ñu fas yéene ànd ak tey yéen tey te moo di jéem a mottali waxtaan bi nga xam ne amoon nañ ko aljuma bi passé mu nekkoon nasaraan di ko woowee les dix commandements di fukki ndenkaane yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ñu ko jox si biir alquran mu nekk fële ca suuratu al an'am ñu nuyu suñu yaay suñu lépp suñu ki nga xam ne moo ñu tette di as sayida Fat Bintu Diop ñaanal ko yàlla defal ko wér sayida Fat Bintu comme ni ma koy waxee aljuma bu jot namm nañ ko wéetal nañu ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko shifa an tàmman laa yugaadiru saqaman wala wajaan wala alaman yàlla defal ko wér mu gaaw dellu sewaat fi nga xamante ni moo di palaasam moo di bërëbam moo di këram ñu ànd ak moom di ko wettali si waxtaanu aljumaa yi nga xamante ni moom la ñuy amal saa su nekk te ngeen di ko déglu waaye itam di ko safoo di ko bége fa tabaarakallahu saa su nekk noonu la ñuy ñaanale itam ki nga xam ne moo jiite kër gi di président Youssou Ndour ñaanal ko yàlla defal ko jàmm ak ñi koy taxaw di ko jàppale si liggéey bi yëpp fa tabaarakallahu macha allah xam ngeen ne aljuma bi passé vieux ñu ngi doon waxtaane les dix commandements muy fukki ndenkaane yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa moom la ñu dénk ci biir alquranul karim wàccee ko ca suuratu al an'am waaye balaa booba si kanam tuuti incha allah danañ fi dajal dalal Cheikh Barham Seck fa tabarakallahu macha allah fa séenee waxtaanee ngan gi nga xam ne euh, Cheikh Al Khalifa Mouhamadul Mahi ñas fa séene na ko amal fii si ndakaaru incha allah ay bés bi nga xam ne moom la ñu dëgmal kon Cheikh Barham bu dikkee rek incha allah dañuy tàmbali dañuy yeggali ak moom waxtaan woowu. tàmbali ko yeggali ko incha allah mu wax ñu naka lay demee ak waajtaay week yi ni demee fa tabaarakallahu yooyu yëpp danañ si ànd ak moom ñu ziar bu baax fa tabaarakallahu ak cheikh Abdourahmane Daw al Karim fa tabaarakallahu fa mu nekk ñaanal ko yàlla defal ko jàmm ak njabootam gi yëpp yàlla defal ko sutura si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziar bu baax njaboot gi yëpp euh, di ko ziaral si turu soxnaam Adja Binet moom itam ñaanal ko yàlla waaye di Adama Ba fa tabarakallahu macha allah pa Adama Ba ak soxnaam ay Aysatu Ñas ak seen doom ummu Mouhamad Jamil Mouhamad Jamil fa tabarakallahu ñu ngi koy nuyu bu baax waaw fa tabarakallahu Aysatu Ñas mooy yaayu Mouhamad Jamil ak borom këram Cheikh aadama Ba fële ca tugal ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm mu mel ni fa tabarakallahu macha allah euh, xam ngeen ne aljuma bii jot ñu ngi àndoon ak yéen ci li nga xam ne moom moo di les di fukki ndenkaane yi vieux bu fekkente ne gis nga euh, euh, euh, nu mu ti écritel bi incha allah nga andil ñu ko ngir ñu mën a def li nga xam ne moom la seydaa di wax rabtu darsul maadi bi darsil xaadir maanaam fàttali li nga xam ne moom la ñu waxtaane woon aljuma bi passé lëkkale ko ak li nga xamante ni fa tabaarakallahu tey moom la ñu fas yéene moom la ñu fas yéene waxtaane nga xam ne dafa nekk fukki ndenkaane yoo xamante nii yu ama am solo la yu yu ama am solo la fa tabarakallahu macha allah nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ñu si jëfal ay ndenkaane yu am solo waaye jullit bu nekk itam war si bàyyi xel aljuma bi passé junjoon nañ wala jukki woon nañ juróom ci ndenkaane yooyu ñu ne woon tey bu ñu ñëwee incha allah comme waxta wi daf ñu xojoon ba tax ñu tënkoon jataay bi foofa bu ñu ñëwee tey incha allah ñu yeggali yeneen yi nga xamante ni moom moo ci moom moo ci des ndax fukk la bu ñu waxtaanee juróom aljuma bi passé tey dañu fa yéene waxtaane waxtaane waat juróom incha allah nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala dafa wax si suratul an'am di wax ak sayduna muhammad gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo gën ku yàlla bind moom mi nga xam ne moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp si jikko moo gën ñëpp si melo moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppe yàlla boobu xaritu yàlla boobu waaye itam fa tabaarakallahu kii nga xam ne yàlla moo ko tànn def ko mu gën ñëpp moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla doon diisool ne ko qul at atlu ma xarama rabbukum aleykum ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaay ma wax leen kaay ma wax la li nga xam ne dama ko xaraamal si sa njaboot gi nga jottali leen ko bi si jiitu waxoon nañ ko aljuma bi passé ñu ne ban la mooy allah tushriku bihi shay'an yàlla nee na bu ñu ko bokkaalee ak kenn waaye itam fa tabarakallahu bu ñu ko bokkaalee ak len ndax ku ne xam na ne bokkaale yàlla dafa xaraam moo xam da ko bokkaalee ak nit moo xam da ko bokkaale ak bant moo xam da ko bokkaale ak xeer ak gënn ak kuur ak leneen ak leneen lu mu mën a doon boo ko bokkaalee ak borom bi subhanahu wa taala ak ku mu mën a doon boo ko bokkaalee ak borom bi subhanahu wa taala tooñ nga sa bopp waaye itam tooñ nga borom bi subhanahu wa moo tax ba seen euh, Luqmaan doon waxtaan ak doomam daf ko waxoon yaa bunayya laa tushrik billah ndax inna shirka la zulmun azim ne ko yow sama doom bul bokkaale yàlla mukk ndax bokkaale yàlla dafa nekk tooñ ga nga xamante nii gu gu gu gu rëy la tooñ gu màgg la waaye itam tooñ nga nga xamante ni kenn xamul la nga xam ne la mu la mu ëmb si ay bàkkaar kenn xamul lu mu toll ba tax yàlla ba muy waxaat si biir alquran feneen mu naan allazina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ñi nga xam ne dañu gëm yàlla te seen gëm yàlla koo koojuñu ko ak benn xeetu bokkaale maanaam du ñu tooñ yàlla di ko bokkaale ak kenn du ñu ko bokkaale itam ak lenn moo tax yàlla waxoon ne allah tusriku bihi an yàlla nee na buñ ko bokkaale ak kenn waaye itam teg si ne wa ni walidayni na ñuy rafetal jëmale si suñu ay ñaari way jur boobu itam indi woon nañ ko aljuma bi nga xamante ni moom moo paase waxtaan si ni ñu war a fonke wayjur ni ñu war a jàppe wayjur itam ni ñu nga xam ne noonu la ñu war a taxawoo ki nga xam ne moom moo di jur balaa ngay sonn si way wayjuru kenn sonnal si sa ay jur loolu la lislaam digle loolu la alquran jàngale loolu la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam santaane moo tax ba waaja ñëwee ne ko dama bëgg a jihaad yi sallallahu alayhi wa sallam dana ko ana say mu ne ko ñu ngi kër ga ma bàyyi mu nekk demal nga jihaad yi si ñoom am nga loo jihaad mu waxaat feneen ne ñaar ñii ñoo ko jaaxal moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko kan ak kan mu nekk ki nga xam ne yàlla daf ko jox alalu àdduna te jaamu si yàlla ba ubbil bañ ubbil ko buntu aljana mu ne ak kan ki nga xam ne ñaari waajuram dañu nekk di dund wala kenn si ñoom ñaar dafa nekk di dund te tarbiyu ko toppatoo ko jàppew jàppew ko jàpp jàpp ko ba am si li nga xam ne moom moo di bunti aljana loolu loo siy dégge mooy balaa ngay topp way juru kenn ak ku ma mën a doon toppal sa ay wayjur toppatoo leen balaa ngay jox way wayjuru kenn joxal say jur balaa ngay taxawu wayjuru kenn taxawul say jur ba noppi daal dee dem si ki nga xam ne moom moo di wayjuru keneen al maaruf nag mu di njekki kenn mënu ko bañ man nga defal sa ay wayjur ba noppi dem defali wayjuru keneen waaye defaloo say wayjur ñuy sonn di di di di tumuranke di daj lu nekk loo xam ne mburu sax du ko daj si taal nga ne leen fu ñikk ni yekk bu forox di dem di toppatoo si ay wayjuru keneen loolu du lislaam ju du alquran du sunna yonante bi sallallahu alayhi wasallam te du yoonu mag ñu baax ñi nga xamante ni itam ñoom laa doon wax sànq ne saa yu ñu jullee war nañ leen ñaanal ndax ni ñu ŋànke lislaam bi ba ñun seen njaboot ñu jot si ñoom itam jàngalewuñu loolu moo tax sallallahu alayhi wasallam ne wa bil walidayni ihsanan ah wala yàlla wa bil walidayni ihsanan waaye sax yonente bi sallallahu alayhi la ko waxoon ndax daf ne ko qul taalaw atlu ma harrama rabbukum alaykum yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko beneen bi mu ne wala taqtulu awlaadakum min bu leen rey seen njaboot ndax ñàkk aw ma lu ma ko yore aw ma lu ma ko dundale aw ma lu ma ko toppatoowee nga rey yàlla nee na déedéet beneen bi mooy wala taqrabul fawaxisha ma zahara minha wa ma batan bu leen jege ñaaw téef moo xam bu nëbbu la moo xam bu feeñ la maanaam bul nëbbu du def sofaan waaye itam bul fës di def sofaan wala bul def sofaan ba lée ba ba noppi di ko fësal li xew léegi def sofaan ba léegi di ko sof di ko fësal wala iyaadu billah suñu borom subhanahu wa taala daf ñu ko tere te yàlla lu mu ñu tere mbokk yi ñu teg ko su suuf moo gën a sedd suñun ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy def beneen bi yàlla na walaa taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq zalikum wasaakum bihi laallakum taqiluun yàlla nee ne bu leen faat benn bakkan si loo xamante ni seen bànneexu bakkan rek ngeen ko teg ngeen faat bakkan ak bu mu mën a doon wala taqtulu sa rek la wax moo xam bu jullit bi moo xam bu chrétien bi moo xam bu juif bi moo xam bu ate bi moo xam bu païen bi bu mu mën a doon bakkanu doomu aadama moo foor ndax yàlla dafa wax ne yaa bani aadama euh, euh, euh, wala qad karramnaa bani aadama boobu laa doon wër carte mémoire bi ñëwaat na macha allah wala qad karramnaa bani aadama yàlla dafa ne dañu teral ñun doomu aadama yàlla nag teg si ne bu ñu rey doomu aadama kon nu mu mën a demee bu rey doomu aadama rey doomu aadama nag bu ko dégg rek jël fital dóor ko ko wala jël paako jam ko ko wala jël luy gaañe nga jam ko ko mu faatu déedéet nee naa ñi war a am ambulance wala poste de santé wala hôpital nga détourné xaalis ba ba garab manqué fa wala ambulance manqué fa wala benn comprimé sax manqué fa nit waroon ka naan ñu sauvé ko bu nga fexe ba mu manqué ndax yaa ko détourné kooku bu deewee yow yaa ko rey bu deewee yaa ko rey tali bi ñu war a defar. mu war a dem ambulance yi di si jaar ñuy teggi ba def accident ndax yaa lekk xaalisu tali ba foofa sa accident ba ku fa dee yow yaa ko rey yow miy détourné xaalis ba li waroon jëm si askan wi ñu fajoo ko dundee si lekk si naan si ku ne gis si sa bopp nga ne ko fuuf lekk ko yow rek wala détourné ko dugal ko feneen ñooñu ku sa dee ndax sabab bu jaare si yow jàppal na yow yaa ko rey kon wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq dhalikum wasaakum bihi laallakum taqiluun yàlla nee lii day moom laa leen dénk amaane di ngeen gën a xeltu di ngeen gën a xalaat di ngeen gën a réfléchir ndax yiñ fi wax yépp xel rekk moo koy mottali ku ne xam ne ne yàlla rek moo fi nekk kon loo bokkaaleel yàlla wala lu ko bokkaaleel yàlla dafa mel ni kon jëfandikoo woo sa xel comme na nga ko war a jëfandikoo ku fi bàyyi sa ay wayjur di def njëkk si wayjuru keneen wala di ñaanal wayjuru keneen ñaanaloo sa ay wayjur fekk dëddu nañ àdduna loolu itam ku xalaatul xalaat bu xóot rek moom moo koy def beneen bi mooy kuy am doom di ko faat ndax naan awma lu may ko yore nangam yow jàppal ne yoroo sa bopp yàlla moo la yor ndax inna allaha huwa razaqu dhul yàlla ne na maa yor wërsëg maa koy joxe te xam naa na ma koy joxee naka la ak nan la kon yoroo sa wërsëg bay yor wërsëgu keneen la preuve bari na ñoo xam ne ñu ngi dund tey seen ay waajur jiitu nañ te ba léegi ñu ngi lekk ñu ngi naan te foogoon nañ ne seen waajur yooyu bu ñu dëddoo wala seen mbokk yooyu wala seen am di jàmm yooyu comme ñoo doon yoro leen dépense dootuñu lekk ay at nga nekk fi soo xëyee ndekki soo xëyee añ soo xëyee reer kon kooku yoru la woon yàlla moo jaare loon sa wërsëg si moom comme na muy jaarale wërsëgam si keneen ba nga jot si ngir nga mën a dund kon yàlla moo yor ñëpp bu kenn mënu ma yor nangam wala nangam dama koy faat déedéet kon nañ ko bàyyi xel bi si des mooy def lu ñaaw bu nëbboo jarul def bu feeñee jarul def ndax wala taqrabul fawaxisha ma zahara minha wa ma batan yàlla nee na bi nëbbu bu leen ko def bi feeñ itam bu leen ko def léegi nag ma al asaf dañ koy def ba pare di ko fësal maanaam tooñ yàlla ba pare di ko kokkali si waxin te loolu baaxul nga tooñ sa borom ba pare di ko ñaawal maanaam def sofaan ba pare génn ko ne fang dàgg si dëkk bi wala faak nga dajji comme ni ñu koy waxee ñëpp di ko gis loolu du l'islam tey suñu borom subhanahu wa taala daf ñu ko daf ñu ko daf ñu ko tere beneen bi mooy wala taqtulu nafsa allati harama allahu illa bilhaq wax nañ ko bi la wasaakum bihi laallakum taqilun yiñ fi wax yëpp nee nañu xel moom moo koy mottali kon yàlla borom xel yi lay waxal kon juróom yooyu moom la ñu waxtaane woon aljuma bi passé muy bañ a bokkaale yàlla sàmm say way jur toppatoo leen di leen bàyyi xel saa su nekk bañ a rey sa njaboot bañ a def lu ñaaw moo xam jamono ba nga koy def nëbbu na wala feeñ na waaye itam bañ a faat benn bakkan yi si topp mooy yi ñu bëgg a waxtaane tey juróom la waxtaane nañ fukk la waxtaane nañ juróom mu des juróom juróom yi des tey bi si jiitu mooy lekk alalu njirim allahu akbar lekk alalu njirim njirim mooy koo xam ne dafa ay way juróom dañuy génn àdduna bàyyi ko fi wala ñu ne way juróom bu góor wala bu jigéen génn àdduna bàyyil ko fi loo xamante ni ngir mu war ko donn la nekk xale amagul âge buñ ko ko mën a joxee ndax amagul yenn responsabilité yi ñu dénk la ko ne la ko téye ko nga lekk alal ja toog di ko seetaan te bari na si réew mi ñoo xam ne dañuy génn àdduna bàyyi fi njaboot ay tout tànk njaboot gu sew nit jox fa lañ ko dénkoon sa alalu njaboot ga mu nekk fuuf ñu màgg mu naan seen baay bàyyi leen fi dara ñoo ñu màgg mu naan seen bàyyi sax faf moo ma ameel te moom moo amel paa ba wala moo amel meer ba ñoo ñu màgg ñëw di ko laaj seen alalu baay mu ne leen seen baay wala kaane la woon amul woon dara te fekk yaa ngi tëdd si alalu jirim yàlla waxul sax bu lekk alalu jirim mais fii si aaya bii dafa ne wala taqrabu maalal yatiimi illa billati hiya ahsan allahu akbar jàppal bi jiitu tey si juróom yi des wala taqrabu maalal yatiimi illa billati hiya ahsan yàlla nee ne bu leen laal bu leen jege alalu jirim bu leen ko laal bu leen ko jege illa billati hiya ahsan xatta yabluga ashudda maanaam illa billati hiya ahsan mooy lan dénk nañ la alalu jirim bi xale bi war na jàngi yow mi dënk dénk am amuloo loo ko fayale école amuloo loo ko jëndale fourniture amuloo loo ko jëndale ay dàll nga jël si alal jooju jëndal ko si fourniture fayal ko si école jëndal ko si ay dàll waaye day ko bind nag xatta yabluga ashudda su màggee nga woo ko bu telloo âge ba nga xamante nii kii il est responsable il jouit de ses facultés mentales et psychologiques nga woo ko ne ko kaay mu ñëw toog nga ne ko am alal jii fi sa bàyyi bàyyi woon 10 millions la bi ngay jàng li ma calculer lépp année nangam dépensé naa 500000 année nangam dépensé naa 300000 année nangam dépensé naa 250000 am 6 millions yi moo si des factures yi yi ma dépensé ngi nii jàmm na ñooy. waaye nit génn àdduna bàyyi fi njaboot nga ne fuuf seen alal di ko takke ay soxna di ko lekk ay ganaar di ko noose ba pare di raayab koll defe ne yaa xaañ golo ko yow xamoo li xew yàlla nee ne inna alladina na amwaalal yataama na fii yakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna sairan sa suuratu nisaa i suma juumul yàlla si yàlla musal yàlla ne ñi nga xam ne dañuy lekk alalu jirim si ak tooñ maanaam jël alalu jërim ji comme ay xale lañ ñu xamuñu dara nga jàppati alal ji di si jël kër yi di jaay jël oto yi di di di di di bazarde di def la si neex du sa alal alalu ay jërim la dañu la jox pour nga sàmm alal ji ba ñu màgg nga tekk seen ay yoxo nga di ko fowe yàlla nee na kuy def loolu yow xamal ne sa biir loo si dugal si alalu jërim loolu safara la innama yakuluuna fi butunihim naaran loo si dégg mooy la ñuy dugal seen biir yooya mu bàyyeekoo si alali jirim ja te tegawul si yoon nañu xam ne safara dong la ñuy lekk wa sa yaslaw na sairan te ëllëg danañ leen tàbbal safara bu ñuy wax sair yàlla ñu si yàlla musal moo tax nit ku ne bu ñu la dénkee alal olof dafa wax may ku la neex dénk koo wóolu vie boo ma mënee waxal s'il te plaît si gannaaw ñu wàññi seen kàddu tuuti incha allah dana gën muy wax ne suñu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne bu ñu jege sax li nga xamante ne moom moo di alalu jirim ndax jege alalu jirim day tax nga laal alalu jirim te boo laalee alalu jirim mën nga ko lekk te suñu borom subhaanahu wa taala nee ne boo lekkee alalu jirim si ak tooñ ëllëg yow li lay xaar mooy ay duma li lay xaar mooy safara yàlla nañu si borom bi subhaanahu wa taala musal moo tax mu ne wala taqrabu ayuha al awsiya maal al yatimi illa bilxaali allati taslahu biha wala tuslihu biha amwaluhu wa yantafiu biha wa yantafiu biha xata yasila ila sinnil buluuxi wa yakunu rachidan nee na bul laal alalu jirim bu lekk alalu jirim lañ la sa dénk téye ko ba mu màgg nga jox ko ko si anam ba nga xamante ni mooy anam ba nga xam ne moom moo gën a ñoŋ kon képp ku ko doon def bàyyi ko léegi képp ku doon laal alalu jirim ma ne bàyyi ko léegi alquran nee na bàyyi ko léegi léegi léegi bi nga déggee aaya bi képp ku doon dundee alali jirim fekk am nga leneen loo dundee waaye yaa ko tey teg ko léegi léegi léegi te nga xam ne li ngay dundee lu xaram la te boo ko bàyyiwul boo ñëwee boo tuubul boo ko bàyyiwul boo ñëwee borom bi subhaanahu wa taala mën na la mën na la mën na la duma mën na la duma te loolu ku nekk war na si bàyyi xel waaw beneen bi mooy li nga xamante ne nii si la ñu jëm yaa ngi dégg fan yi yëpp vie ñi si gannaaw soo ma dimbalee si ñoom dinaa jël de ndax ñu ngi waxtaan te ñu ngi en direct te ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñuy jaxase wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla moo tax mu ne xatta yabluga ashuddahu maanaam ba xale bi màgg wala ba xale yi màgg nga jox leen seen alal ne leen seen ndonol bàyyee ngi nii wala seen ndonoo ngi nii yéen ko moom dem leen bu ñu yékkee may la alhamdulilah parce que majeur nañ ay muskalaf lañ xam nañ li lislaam tere xam nañ li lislaam sant ñoom itam xam nañ lu ñu bëgg seen xel ñu ngi ak ñoom bu ñu yekkee may la si ah nga jël nga xam ne dañ la ko may du dëgg loolu war nañ ko bàyyi xel beneen bi fi ñu jëm mooy suñ borom subhanahu wa taala leneen loo xam ne daf ko bëgg ñu koy doxale nee naa la juróom yi tey mooy bu ñu jegee alalu jërëm si la ñu nekkoon waññal mooy benn bu ko lekk boo ko lekkee ay duma moo la siy xaar torox tànge àdduna ak àllaaxira te yàlla ku mu ne lii bu ko laal bu ko laal te am na feneen fu mu waxaat si alquran ne ne bu leen def njabootu jàmbur loo xamante ni bu doon seen njaboot la du ngeen bëgg ku leen ko def Aziz Aziz Soumaré nga baal ma ñii di wax nii nañ ñu may ñu àggali suñu émission wala ñu arrêté émission bi parce que tamit àndul wax dëgg yàlla yaa ngi dégg mu nekkoon bu ñu jegee alalu jirim loolu ku ne war na koy bàyyi xel moo njëkk tey bi si des yàlla ne wa awful kayla wal mizaana bil qist yaa ngi dégg tey ñu naa la boulanger yi dañu grève meunier yi dañu grève defaratuñu mburu nàngam sangam nga gis ne boo ñëwee ne jaay ma kilo mburu kilo mburu kilo nga jënd waaye boo ko peesee du mat sax genn waa liibar du mat liibar bay mat kilo kon yaa problème loolu war nañ ko régler ñoom seen biir ñoom techniciens yi nga xam ne ñooy defar mburu kalaasu alaaji asan géej gi xam naa ne fan yi sonn nañ ak pa géy mën a sa koñ ba ak njaween yi macha allah xam naa ne fan yi moom comme mburu amul sonn nañ mais li yàlla bëgg la jàngale foofu rek mooy ak màndu si njaay màndu si commerce màndu si jëflante loolu ku nekk war nga si bàyyi xel bi maanaa léeg-léeg bu njëkkoon da ngay gis balance yi ñaari balance mooy tege ñu jël balance bi teg si kilo jël ba euh, loo xam ne kilo lay pesé jël balance bi teg si di la jaay kilo ceeb wala kilo mboq wala kilo dugub exemple yow mii ñuy jaay balance bi dafa war a équilibré nga xam ne kilo kilo la mais yow mi mi ñuy jaay da naan na fi ñuy teg ceeb bi na daanu bu daanoo nekkatul kilo donte la ñetti peppi ceeb la yóbbaale nga ko muy àq te bu njëkkoon bi poids yooyu amee da koy dégg kuy jënd mu naan na daanu de na daanu mais kon yow yaay tooñ te waroo yóbbu àq moo tax yàlla na wa awful kayla wal mizaana bil qist bu ngeen di peser wala ngeen di natt yàlla ne ne def leen ko si ak màndute jaaykat bi bu mu duufal poids am kii ñëw jënd kilo mel ni jaay na ko kilo te liibar ak genn waa liibar la la ko jaay loolu baaxul naka ku nekk di mooy tandaku ndax boo ko lekkee lekk nga alalu jàmbur wala lekk nga li nga xamante ni moom moo di moom moo di riba wala lekk nga yëfu jàmbur ci li nga xamante ni moom moo di ak tooñ moo tax mu ne wa awful kayla wal wasna bil adli alladi yakunu bihi tamaamal wafa wa ida bazaltum juhdakum fala xaraja aleykum fi ma qad yakunu min naqsin mu ne ko mu ne booy jaay fexeel la ngay jaay mu équilibré tegu si ak màndu ak njub waaye li original la te du original lii semi original la te du semi original comme ni ko xale yi di waxe feek la baaxul mais yow yaa tooñ li si am wax ko du original du original lii lay jar lii lay jar original la original la lii lay jar lii lay jar mais original la te fekk na di original te léeg-léeg dañuy waat nag ba tëdd si suuf barke diw yàlla xam na ne nangam sàngam furaas daal di xëddeen boo ko jëndee ba dem sa kër rek xam ne liñ la si wax yëpp dara amu si dafa am bés si benn xissa buñ doon nettali waa ji dafa ñëw jënd kilo suukar saa yu ñëwee jënd si waa ji kilo suukar ne day ñëw rek ne ko jaay kilo suukar waa ji jox ko kilo mu dem saa yu ñëwee ne ko jaay ma kilo suukar waa ji jox ko mbuus mu dem saa yu ñëwee ne ko kilo suukar mu jox ko mbuus mu dem ba benn bés ka doon jaay suukar sa soxlaa exemple dugub. bu dem sa kay jaay te mu doon jaay suukar sa comme koo ko am dugub ne jox ma kilo dugub kooku jox ko dugub mu yóbbu këram ba mu ko yóbboo teg ko si poids bi affaire bi matul kilo mu dellu sa ko te mu doon jaay suukar sa ne ko yow li ma jaay matul kilo mu ne ah noo ko xamee mu ne ko ah dama ko pesé mu ne ko ah man de aw ma balance kilo suukar ya ma doon jaay si laa ko natte xanaa kon moo njëkk a jubadi ga mu ne ko kilo suukar ya ma doon jaay ne ma kilo la mat na kilo keroog ba nga ñëwee soxlaa kilo dugub man aw ma nattukaay kilo suukar balaa jël nattale ko ak mbuusu dugub bi mu mat kilo sa lang ma jox ma jox la ko kon bu matul kilo dugub bi bu matul kilo mooy suukar sax ma doon jaay tamit matul kilo hmm. kon i'mal ma shi'ta kama te diinu tu daanu bi yonent sallallahu alayhi wasallam doon ñëw na defal lu la neex defal lu la soob la nga leble rek moom lañ lay fay nekkate borom suukar sa moom la mu doon jaay ma sul mat kilo moo tax keroog ba mu soxlaa dugub borom dugub ja natt ke sa la mu doon wax ne mat na kilo te matu ko delloo ko ko mu ne matul kilo kon borom suukar sa nekk da moo tooñ boppam loo siy déggee mooy lu waay def sa bopp moo tax booy jaay teg ko si njub gis nga ku fiy triande si am njaay wala si yëfi jàmbur wala si transaction dafa nga ne te du dëgg san ko teg jàppal ne nu mu mën a doon da nga ko fay fii te da nga ko fay fële ndax da jël alalu jàmbur si nax ko si tooñ si njub la ko te suñu borom subhanahu wa taala nee na inna allaha laa yahdi xaa inin yàlla nee na kuy wor say pexe du njub du jub mukk kon loolu itam dafa nekk loo xamante ni luñ jara bàyyi xel la surtout si ñi nga xamante ni dañuy jaay matul kilo fexel mu mat kilo matul liibar fexeel mu mat liibar matul nangam fexeel mu mat ko ngir nga bañ a gàddu benn àq ndax ëllëg yawmal qiyaam àq yooyu dafa nekk loo xamante ni daf ñu fay tardel te jullit bu nekk war nga si bàyyi xel kon nga xam ne la nga say dégg mooy lislaam bàyyiwul benn détail wax na la njirim ñëw na la ñëwal na la si li nga xam ne moo di commerce ak transaction nay mat nay mat jël diwlin bu ma rawat fukki euh, benn litre nga rax ko jël diwlin mu war a mat fukki litre nga rax ko ndax jël lem sotti si ndox naan lem piir lem piir ay walem ay walem te da ko kooj foo ko teg aywa diwtiir diwtiir te da nga ko kooj foo ko teg foo ko teg léegi nga ne ñaata nga ne original la bu baax bi la lem piir la ñaata nga ne junni ñu jox la te fekk lañ sa def matul sax yow téeméer ndax kooj nga kaa kooj kooj ba ku toog fii xool lem gi sax boo moytul mën naa gis ba fii ba voilà ba France <laughs> ah Cheikh Abdourahmane ziar nañ la macha allah kon loolu jullit bu nekk war nga koy bàyyi xel njaay daal nañ ko teg si yoon. commercé nañ ko teg ci yoon jub tey jubal loolu moom mooy dëgg andil naa la bul laal alalu jirim yàlla nee na bu ko sax jege ay jàpp alalu jirim mel ni ku gis ceeb loolu romb di subhanallah yàlla ñu ci yàlla musal bari waay na koy ñee dama yàlla jéggal boo moytuwul moom la yor te bari waay na koo yërëm boo moytuwul àq jirim a ko jàpp jirim du caaxaan de jirim nee comme ni ñu koy waxee njabootu yàlla lañ yàllaa leen di sàmmal seen bopp moo leen di sàmmal boppam wallahi alazim moo tax yonent bi sallallahu di wax naan ñi nga xam ne dañuy génn àdduna sax doon ay xale te majoru ñu doon ay jullit yàlla daf leen di jox maam ibrahima alayhi salaam sa aljana moom moo leen di téye ba yowmal qiyam allahu akbar kon nga xam ne yàlla fonk na fonk na xale waaw koo xam ne xamul dara génn àdduna majooragul xamagul dara yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maam ibrahima la ko yàlla di jox alayhi salaam sa aljana huwa kaafilu wala kafilu al al aytaam moom mooy ki nga xamante ne moom moo leen di moom moo leen di toppatoo foofu sa aljana macha allah moo tax euh, xale yi nga xam ne ñoo fi faatu duñ ci détail yal nañu bokk ci njabootu maam Ibrahim alayhi salaam te yàlla dool li si réew mi jàmm def fi sutura kuy wax waxal lu rafet kuy def defal lu rafet àdduna bi jeex na ba noppi wallahi alazim ay waxtu rek moo ñu fi bàyyi ay fan rek moo ñu fi bàyyi. ay at rek moo ñu fi bàyyi kenn nekku fi éternellement nañuy rafetal diggante yi nañuy rafetal si liggéeyukaay yi nañuy rafetal si kër yi nañuy rafetal si néegu sëy yi nañuy rafetal si oto ñuy bokk transport en commun yi nañuy rafetal si avion yi sax xatta nañuy rafetal si lépp loo xamante ni day yàlla day dogal ñu bokk ko si penc mi ndax loolu rek moom moo am moom moo am solo ay kàddu day rafet dinañ ci ñëw si kanam tuuti moo tax yàlla ne bu leen jege alalu jirim wax naa conséquences yi si nekk te ma wax la boo dencee alal jirim ba ñoŋal ko delloo ko seen ay borom ay tuyaaba kese kese la la yàlla di bindal ndax yàlla bu la waxee boo defee nangam am bàkkaar jàppal ne loolu boo ko defulee dañ lay bindal ay tuyaaba kon ndekete alalu jirim ji ngay dencal seen ay borom ay tuyaaba lañ la siy bindal ba ker balaa nga leen di delloo seen alal segam laaloo si dara si ak tooñeel pour mu leer même bu fekkente ne yow sa loxo jotul sa gannaaw te nga yor alalul jirim ba lislaam may na la nga di ko si dundal ba mu màgg waaye doo ko bind bu màggee nga ne ko ah man kat sama loxo jotul woon sama gannaaw aw ma lu ma la doon dundale si sama poos si sa alal laa la doon dundale lii laa si dépensé lii moo si des waaye na koy wax nay doon dëgg nag wax ñu la nga dépassé 10 millions nekkaan 30 millions laa dépensé loolu du njub nañ ko bàyyi xel beneen bi des mooy yàlla di wax texte ba mu waxee ci wàllu jënd ak jaay teg si ne laa yukallifu laa nukallifu nafsan illa wusaha yàlla nee ne du ma teg kenn loo xamante nii mënu ko loolu loo si déggee si commerce yàlla ne bu tegul kenn lu mu mënul si commerce loolu noo koy déggee bu dee julli di nga ko dégg boo mënul taxaw nga wéeru boo mënul wéeru nga toog boo mënul toog nga def nangam ba ilaa fa nga mëne ba tëdd yaa ngi dégg boo mënul woor nga def nangam ndax am nga ngàntu lu sharia nangu dafa nangam ak nangam boo amul azak loo génne azaka del génne sarax soo ko mënee ndax nangam ak nangam waaye bu yàlla ne teguma kenn si commerce wax bu ngeen di commerce na ngeen ko nattale ba mu jub ngeen teg ko si yoon moo xam da ngeen di peser moo xam da ngeen di natt na jaar yoon te équilibré ba pare teg si ne laa nukallifu nafsan illaa wus'aha loolu yow noo koy déggee xam nga loolu borom bi subhaanahu wa taala nam ma wax foofu laa nukallifu nafsan illaa wus'aha bu fekkente ne da ngay jaay te mu wër la ne njaay bi mën si jubal ndax dëng ngaa dëng dëng ba mel ni watati jaan fu jaan jaar def nii nga xam ne day dëng mu wóor na la yow mënoo soppeeku bàyyi commerce bi nga dem defi ji leneen ndax moo lay noppal ndax boo ci nekkee nii ba dee si ba moytul da nga yóbbu àq jàmbur te boo yóbbu àq jàmbur boo ñëwee suñ borom subhanahu wa taala rëq sa ndigg arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahul bayaan alchamsu wal qamaru bi xusbaan wannajmu washajaru yasjudaan wassamaa rafaaha wa wadaa almizan allah tatxaw fi lmisan wa aqimu lwasna bilqist wala tuxsiru lmisan wal arda wadaaha lil anam ba voilà hal jazaau l ixsani illa l ixsan fa bi ayi alaai rabbikuma tukadiban tabaraka smu rabbika zul jalali wal ikram sadaqallahu alazim yàlla di wax ne si suratu rahman wa aqimu lwasna bilqist wala tuxsiru lmisan bu leen di jaay dee leen jubal moo tax fi mu ne laa nukallifu nafsan illa wusaha bu la wóoree ne commerce bi te commerce dafa barkeel wallahi commerce dafa barkeel yonent sallallahu alayhi wasallam commerce na ay yonent yu bari commerce nañ mais commerce mo mécc mu barkeel la boo ko tegee si yoon waaye boo ko tegul si yoon wallahi loo am yàlla da koy def habaan mansuuran poussière buy naaw la doo gis sax fu muy jaar yàlla ñu si yàlla musal yàlla bi mu waxee ne bu ñu jegee alalu jirim bu ñuy jaay nañu màndu si njaay ma teg ko si yoon original neel original la lul original neel du original teg si ne wa ida qultum faadilu kay walaw kaana za qurba yàlla nee ne wa ida qultum fataxarraw fi qawlikum al adl duuna maylin an il xaqi fi xabarin aw shahadatin aw xukmin aw shafaatin walaw kaana alladi taallaqa bihi al qawl za qarabatin minkum fala tamilu maahu bi gayri xaqin allahu akbar wa iza qultum faadilu yàlla nee na bu ngeen di wax li ngeen di wax nay doon dëgg te na tegu si màndute xoolal coow li am si réew mi fan yi coow yi tribunal damay dem duma dem jàppal bàyyil coow li nekk kur ñu mel ni ñoom ñoo moom réew mi ñoom ñi nga xam ne ñoo yor politique bi moo xam pouvoir moo xam opposition te si nekk la nga la la war boo si nekkee jàmm rekk mooy am wallahi lazim ñi war a opposé opposé teg ko si yoon ñi war a gouverner gouverner teg ko si yoon loolu mooy dëgg ñu noppal ñu ñun population bi ndax sonn nañ si coow sonn nañ si fitna sonn nañ si détail yoo xamante ni jëmalewul réew mi fenn si ay intérêt ay nit rek bu kii waxee joxe jox kii ki wax jox kii kii wax jox kii ba kañ dimbal leen sénégalais yi sonn nañ ñi war a liggéey yor nguur gi gouverner nañ gouverner te teg ko si yoon loolu mooy dëgg ñi war a opposé nañu opposé te teg ko ci yoon te ñu xam ne lu waay réew mi ñu ñëpp ñu ñoo ci bokk yem. te ñi nekk opposition ëllëg ñooy nekk ci pouvoir ñi nekk ci pouvoir ëllëg ñooy nekk opposition ndax wa tilkal ayyaam nu daawiluha na naas day wër rek bul la day tourné président ma ci sàll mi fi nekk tey opposant la woon tey moo nekk président ëllëg dafiy jóge yàllaa xam kañ lay doon keneen ñëw fi kon nañ ko rafetal kàddu yi nay rafet. léeg-léeg nga dégg kadd goo xam ne day bàyyeekoo si si ñiy ŋànk politique bi côté yëpp laa wax pouvoir comme opposition doo bëgg lu fatt say nopp ndax kaddu yu sofaanu ñun xamuñu loolu yarowuñu si loolu ñu solo lu bëgguñu loolu si suñu réew wa ida qultum faadilu te looy wax na doon dégg loo wax si kaw suuf da ko waxaat si biir suuf da nga ko waxaat yowm alqiyama billahi alladi la illa huwa kon na rafet dañuy rafetal ñun ñoo bokk réew mi mënuñu ko xaaj ñoo bokk Sénégal mënuñu ko séddoo ñoo bokk réew mi kenn mënu si naan man maa moom fii kenn du fi yegg sa maa moom fal déedéet yàlla dogal na li muy dogal ba noppi ñu bokk lépp nañ ko rafetal waxoon naa ko keroog bi may waxtaan ci bennoo gi jullit war a bennoo ma ne ñu ñu jëppi du ñu jëppi wante waxin la déggin la laaj maanaam ñun dañu war a suudewu suñu pee sociale bi ñu am nañ ko fexe nañ ko préserver ndax dañ ñu ko donn suñu ay maam suñu ay jur ba mu yegsi si ñun kon ñu ñu itam amuñu droit pousse bi di réer suñuy loxo na ñu ko téye ñoŋal ko jox ko suñu ay njaboot loolu moom mooy dëgg ku tooñ ñu la yaa tooñ ci ci ci ci ñu tooñ ñu nekk dañ la tooñ baaleel ci tooñ jéggalu après ñu jàll si leneen loolu moom mooy dëgg c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça te loolu nit ku nekk war nga si bàyyi xel euh, euh, Soumaré bu invité bi yegg se na Cheikh Barham bu fekkente ne mën nga ñëw utal ko micro rek incha allah comme ça mu ñu dugg ci ci li nga xam ne moom mooy ay tànkam tey fii ci seen émission ci télévision Futur Média yàlla na wa iza qultum fa'dilu bu ngeen di wax na ngeen wax dëgg te teg ko ci màndute loolu moom mooy dëgg na doon dëgg waaye tam na doon màndute bul jëw sa mbokku jullit bul wax sofaan sa mbokk jullit bul témoigner lu dul dëgg jëmale si sa mbokku jullit wala sax si doomu aadama bu mu mën a doon del wax dëgg te yàlla rek tax dëgg yàlla rek moo moo ko moom te alxaqu yaali wala yola alayhi wala yaalaa wala yola alayhi dëgg moo féete kaw lépp te àdduna du ko yàgg ba dara dara dara féete ko kaw moom dëgg neexul nag léeg-léeg di ko wax mais na ñuy waxante dëgg te yàlla rek tax wa iza qultum faadilu bul bëgg lu neex Maawo Cissé nga ñëw naakaan Aziz Soumaré nee na la nangam pour am si Maawo Cissé nangam déedéet loolu bu ko def bul neex Euh, euh, euh, nu mu tuddati sax directeur bi ñëw naa kaan diw sàngam nee na la nangam dëgg naa nee na nangam te du dëgg même bu dee dëgg sax waroo ko yóbbu wax parce que sofaan kenn du ko jottali sofaan kenn kenn kenn kenn kenn du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko jottali maa ngi ziar bu baax imaam magistra ki nga xam ne moo di imaam Ndaari Diop di imaam di magistra bu jumaa jotee day bàyyi tribunal ba dem sa jumaa ja taxaw xutba bu jógee tur euh, jumaa ja delluwaat tribunal ba atte loolu la sëñ Cheikh doon wax radiallahu anhu ne tant que l'islam yeggul fii développé wul imam daari magistrat maa ngi koy nuyu bu baax moom xutbam tey sax yaakaar naa si loolu la ko tënkoon ñu koy nuyu di nuyu waa tribunal yëpp vie na nga wuti xaritu magistra xaritu procureur ak xaritu colonel ak xaritu capitaine ak xaritu ñëpp waaw fànn yi nekk rek fexeel am si xarit macha allah waaw booba ne nekk xaritu président sax baax na sant yàlla kon loolu jullit bu nekk war na si war na si bàyyi xel wa iza qultum faadilu wax dañ koy rafetal wax day tegu si dëgg wax day màndu danañ si ñëw si aljuma bii di ñëw yaatal ko incha allah ndax suñu gan gi yegsi na te li ñu dese si waxtu taxu ko bari lool fi ñuy jeexale wa bi aw wa bi ahdillahi awfu yàlla nee ne kóllëre gi ngeen fa sant ak seen borom na ngeen ko sàmm alastu bi rabbikum qaalu balaa yàlla dafa dajale ruux yëpp ne ndax suma seen bor du ma seen borom sama bos muy bu jullit bi bu chrétien bi bu juif bi bu ate bi képp kuy doomu aadama rek sa ruux keroog nee na balaa ax kay yaay suñu borom yàlla ne kóllëre googu nag na ngeen ko fas te sàmm ko te xam ne ëllëg dama leen koy laaj waaye itam kóllëre gii dox seen diggante na ngeen ko téye sàmm ko te xam ne ëllëg dama leen koy laaj ndax loolu day nekk loo xamante ni lu mënul ñàkk la bi zalikum wasaakum bihi laallakum tadakkaruun lii nag dama leen ko ñaaxe dama leen ko euh, euh, euh, conseiller dama dama leen ko laayee biir dama leen ko bàyyee laallakum tazakkaruun amaana di ngeen di fàttaleku si lu bëree bëree bari si ak ajuma bii ñëw danañ ko gërëm faram fàcc inchaa allahu taala wax nañ alalu jirim bu ko laal wax nañ booy commerce na nga ko teg si yoon wax nañ booy wax nanga màndu wax nañ itam li nga xamante ne moom moo di kóllëre ga yàlla teg si na wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabilihi dalikum wasaakum bi laallakum tattaqun yàlla nee na yii ma digle nii ba nga xam ne bii si mujj mooy yoon wi na ngeen ko topp mu mat fukk yàlla nee na na ngeen ko topp bu leen topp yeneen ñàll yi ndax bu ngeen ko toppee rek si mbooy gi ngeen jëm te bu ngeen jëlee mbooy gi ëllëg ay ay ay mbugal ak ay duma mën na leen si fekk yàlla ne zalikum wasaakum bi la laallakum tattaqun li ma leen digal bu ngeen si ñëwee tey ko jàpp ko dangeen am li nga xam ne moom moo di objectif bi tax ma indi leen fi te moo di ragal yàlla di ak waa kon ñun ñëpp nañ ko déggandoo fukk yaa ngi noonu ku nekk war nga si bàyyi xel ñu tënk ko rek si deux secondes daal dee ñëw ak suñu invité fukk yi yii la yu ñu yàlla digal muy les dix commandements bu ñu bokkaale yàlla ak kenn buñ ko bokkaale ak len nañu rafetal suñuy wéyjur bu ñu rey suñu ay doom beneen bi mooy bu ñu def lu ñaaw moo xam dafa nëbb moo xam dafa feeñ beneen bi mu ñu bu ñu rey benn bakkanu doomu aadama la yàlla subhanahu wa taala wax beneen bi mooy bu ñu jege alalu jirim juróom bi juróom ñaareel bi mooy bu ñuy commerce nañ ko teg ci yoon beneen bi mooy suñu borom subhanahu wa taala ne bu ñuy wax nañu màndu beneen bi yàlla ne ne nañuy sàmm kóllëre am na ñoo xam ne si man mënuñu si dara wor rek yàlla nañ ci yàlla musal waaye itam fa tabarakallahu beneen bi yàlla ne wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu nee ne lii mooy yoonam mooy fukkeel bi nañu ko topp wala tatabiu subula fa tafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaakum bihi laallakum tattaqun lii daal mooy fukki yi nga xam ne yàlla digal nañu ko aljuma bii ñëw nag insha allah dañu koy résumé bu sooba yàlla si kantanu yàlla ak mbaaxam bu ñu amee yeneen eh, jataay si kantanu yàlla ak daja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Barham Seck nuyu nañ la ziar la euh, fa tabarakallahu macha allah tàmbali nañ waaye xam naa yoon bi moo xatoon ndax bi ñu ñëw fa lañ jaar gis nañ li mu xate ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak téléspectateur yu télévision Futur Média ñu fàttali ne dañ fi ñëw ngir ñu waxtaanee ngan gi nga xam ne euh, Cheikh Mouhamadul yi Niass mu ngi koy waajal incha allah ayu bés bi ñu séntu boo nuyoo téléspectateur yi nag ñu daal dee dugg ci li nga xam ne moom moo di moom moo di waxtaan bi ba kër balaa heure bi di jot tafadal mashkuran bismillah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 suñ ko nuyoo nuyu nañ boolem xulafaa yi nga xam ne moom moo nekk fii te nuyoo biñ koy nuyu nag. Mhm. dañ koy jël teg ko ci loxo représentant bi nga xam ne moo nekk fii ci Dakar. Mhm. muy Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahima Niass. mu teg ko ci loxoom mu tegal ñu ko ci ñëpp. ñu ngi jéggalu tamit ci retard bi du ci ñun teel nañ jug lool. Mhm. waaye noonu la ko yàlla bëggee. macha jël jërëjëf Cheikh Barham yow itam am mbégte dalal la bu baax fii sa kër la ndax këru euh, këru diine yëpp la. di télévision Futur Média gis nga barke Dembo Ndiaye fa tabarakallah ñu ngi woon ci gàmmuwaat bi ak Medina Baye ànd si ak mbokk yu baax yooyu ñoom Cheikh Abdallah Muntaka Niass ñoom ah Cheikh Ahmad Niass bu Papa Dam ak njaboot gépp gis nga tenit bii sax moom maa fi jaar moom Cheikh Ahmad Niass bu Papa Dam ñaanal ko yàlla yàlla gën ko dëgëral ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam àndoon ak waa Nuurul Basar itam sama xel dem na ci Cheikh Abdourahmane Ndaw fa tabarakallahu ak njaboot gi mu gépp ñu ngi koy ziaral euh, Cheikh Pa Ba fële ca France ak soxna Seyda Ndey ay Aysatu Ñas di yaay si ummu di yaay si Mouhamad Jamil ak waa France yëpp macha allah ñaanal leen yàlla defal leen jàmm di am mbégte jàkkaarloo ak yow comme ni ñu ko waxee ñu ngi waaj ngan gu rëy di nganu alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi Ñas ataala allahu baqaahu wa ayadahu wa nasara yal na yàlla guddal fanam gën ko dëgëral ngan gi kañ lay doon ak waajtaay wi naka ngeen koy préparé Cheikh Barham waaw oustaz bi ñu ko ziyaaree moom cheikh bi. ak njaboot yëpp ñoom Baba Lamine ak ñi nga tuddee yëpp fa tabaarakallaahu. waaw oustaz Xasan ñu ngi kontaan bu baax. ngan eh, la boo xamante ni ñun waa Dakar ñoo ko sàkk woon ci moom. ci njiital représentant bi nga xam ne moo fi nekk mu nekk cheikh Mouhamadul Amin. Mm-hmm. ñu sàkk ko ci moom lu six mois. waaye moom bu la waxee déet rek xam na lu tax mu ne déet bu ne waaw xam na lu tax mu wax waaw. Eh, biñ ko sàkkoo ba mu gi ñëw na ko ah Niass yaa ngi demoon ay ngan te waa Dakar ñi ngi la soxla mu ne ma Dakar daal Dakar mu ne ko Dakar ñoo la bëggal seen bopp. adduna ñoo la bëggal seen bopp adduna yëpp ñoom ñoo bëgg yow nga ñëw. ñu déglu sa message ci digg capital bi. mu nangu ko mu ne buñ tabaskee ba pare seet leen bés bu leen neex. ñu gis ne tabaski tam xarit gàmmu dafay jege ñu ne nañ bàyyi ba gàmmu ba pare ñu am temps ñu def ko. ñi def ko ci tànn ci weer wi nga xam ne moom mooy weeru novembre bi nga xam ne ci la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass gane woon àdduna ñi def ko ci lool ngan gi nag ngan la boo xam ne taalibe yi ñoo sàkku ci sëriñ bi mhm. taalibe yi ñoo bëgg sëriñ bi taalibe yi ñoo nammu sëriñ bi ñoo bëgg message yi sëriñ bi mu ñëw ci capital bi ñu gane na ko mhm. suñu sañoon dañ naan dañoo bëgg mu dëkk ak ñoom fii ci capital bi ndax Cheikh Mouhamadul Mahi fépp fu mu dem rek nit ñi dañ koy bëgg bëgg ba nga xam ne ni suñ sañoon duñ bëgg tàqalikoo ak moom. Mhm. ndax ñun ci wàccaay wii rek xam nañ ci lu bëree bari am na luñ ci xamoon waaye gën naa yokku. Mhm. ngan la nag boo xam ne ni incha allah sëriñ bi dafay ñëw jeudi le 18 novembre incha allah. alxames bii ñëw alxames bii di ñëw. kon ayu bés moo benn ayu bés rek moo ci des neexee nga ne juróomi fan a ci des. macha allah waaw alxames le 18 novembre bu ci yàlla àndee lay départ Medina Baye. à partir dix heures ci suba moom ak mbokkam yi am yépp délégation boo xam ne ndax nit la koo xam ne tey mën nañoo wax ne lu jege deux cent millions personnes ñi ngi boot ci gannaawam bi kon kooku buy jóg rek ñun nañ sóoraale ne ñi nekk fii yëpp ay jóg te ngan la goo xam ne am na ñu jugee ci international bi yëpp ñi ngi woote ne ñoom dañoo bugg a ñëw gungee si sëriñ bi jot naa message boo xam ne Gambie la jugee ñu ne danañ ñëw jot naa message boo xam ne Mauritanie la jógee am na ñoo xam ne nee nañ danañ ñëw. jot naa message boo xam ne Cameroun la jógee am na ñoo xam ne nee nañ danañ ñëw. jot naa message boo xam ne euh, Nigéria la jógee am na ñoo xam ne nee nañ danañ ñëw ñi ngi séntu tamit waa Mali ñi ñëw ci ngan gi. kon nag kon sous région bi daal ñu jox ñoom ñu ngi wax. ñëpp ñu ngi wax affaire bu nekk gàmmu gàmmu gàmmuwaat. ah man damay damay damay ragal sax mu nekk nag euh, gàmmu Dakar. waaw damay ragal mu nekk gàmmu Dakar macha allah ci ngan googu nag sëriñ bi bu départ alxames ba egsi fii incha allahu rabbi dañ ko teeru mu jaar bu ñëwee ba ci suuf pont yaraax bi noonu taalibe yëpp danañ taxaw foofu teeru ko mu jaar ci front de terre bi romb buntu Walfajri egsi rond point liberté 6 ñëw jaar ci kër rakkam bi nga xam ne moom mooy représentant fii ci Dakar mu nekk Cheikh Mouhamadoul Amine Cheikh Ibrahima Niass moo koy dalal mhm. ci këram saafuwanteeg moom mu añ fa bu paree dem ci daluwaayam mooy Baaba Lamine mooy Baaba Lamine macha ci këram foofu lay wàcc mhm. bu pare dem ci daluwaay lu waral loolu nag mooy ne ñun dañoo jàppoon ne fële lay jaar amoon suñ programme yuñ teg waaye Baba Lamine gannaaw moo nekk représentant xalifa bi fii ci Dakar. Mhm. ñun lu mu bëgg rek lañ bëgg. macha allah ñun amuñu gannaaw dañoo jaayanteeg Cheikh Ibrahima Niass. képp ku fi nekk di Cheikh Ibrahima Niass rek loo bëgg la bëgg. mu ne gan gu mel noonu Oustaz Xasan boo sañoon mu jaar sa kër. Mhm. man bu ma sañoon mu jaar sama kër ku nekk bu sañoon mu wàcc këram. kon nag gannaaw nag moom la fi sëriñ bi teg. Mhm. mu ko doon liggéeyal démb ak barki démb ak barkaati démb. fii képp ku fi nekk rek mën naa yaa teg sa bopp ci Ndakaaru waaye moom sëriñ bee ko fi teg na ko yow yaa ma doy ci ndakaaru mhm. mu nekk di ko liggéeyal képp kuy taalibe Cheikh Ibrahima Niass nekk ci ndakaaru ci ronam nga nekk mhm. kon kooku noonu moo ne ci këram lay njëkk a jaar mhm. bu fa jaaree saafu wanteeg ñoom añ foofu ba pare mu ne ñu man loolu laa am ci ngan gi loolu moom ma ci gën a neex su paree ñu yóbbu ko ci dalam mu toog dallu alxames ji moom jeex na a ajuma ji moom incha allahu le 19 novembre am nañ xadaratu juma bu mag ñu ngi ci au bépp jullit képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ndax laa ilaha illallah ñëpp ko moom ñu julli tàkkusaan wazifa suñ paree def suñ zikru juma ba timis jot ñu julli timis ci la ñuy defee cérémonie officielle bi mhm. cérémonie officielle boobu nag ci lay message xalifa bi di jógee ci ajjuma bi ci ajjuma ji mhm. incha allah bu ñu jullee timis ba pare ci la ñuy def cérémonie officielle bi foofu ci stade municipal bu parcelle Mm-hmm. stade municipal bu parcelle moom moo taqaloo ak mairie parcelle mm-hmm. ñu ngi ci oo nag bépp jullit rawatina taalibe Maulana Cheikh Ibrahima Niass ñi mm-hmm. nekk ci région de Dakar ak région de Thiès yëpp bu kenn des ndax sun sëriñ mooy ñëw te xéewal la boo xam ne àdduna yëpp a nga ko bëgg man xam naa ñoo xam ne ñi ngi Soudan ñii ñi ngi Tchad yàgg nañ topp sëriñ bi pour mu ñëw ñu invité ko foofu noonu kon nag bu ko yàlla mayee waa Dakar nañ mobiliser wu wane ne suñ sëriñ mooy ñëw te gan gi gan la goo xam ne sunu gan la loolu mooy ci àjjuma ji mm. samedi bi incha allahu rabbi buñ toogee ba treize heures incha allah dana dem ci ci zawiya bi nga xam ne Serigne Mansour bu Serigne Mamoun Niass mm. moom moo ko tabaxoon fii ci Nord Foire ci kër Serigne Mamoun amoon yéene lool Serigne bi ñëw inaugurer ko ko mm. boobu Serigne bi sax yàlla def na nekkagul xalifa waaye Serigne Mansour amoon yéene lool mu ñëw fa inaugurer ko ko zawiya bi inaugurer nañ ko waaye Serigne bi dana ñëw mottali yéene bi Serigne Mansour bëggoon. macha allah dana ñëw foofu bu ñëwee waxtaan ak taalibe yi jiite ñi tusubaar su paree dem samedi ba incha allah mu nekkaat le 20. ci 17h am nañu conférence bu mag a mag mu tudd journée culturelle Cheikh Ibrahima Niass. macha allah. Hmm. waaw foofu sax laa bëggoon ñëw Cheikh Barham. ndax euh, fa tabaarakallahu macha allah ginnaaw bi ñu delloo. santati la gërëmati la boobu ba léegi euh, yaa ñuy expliqué li nga xamante ni moom moo di euh, itinéraire bi nga xamante ni. alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi incha allah war na ko def tàmbale ko alxames nga xam ne day départ 10 heures comme ni nga ko waxee fële ca pays ba euh, Medina Baye waa pays ba moom nañu nañu bàyyeeg sëñ bi rek fan yi macha allah ndax dafa nekk koo xamante ni euh, rôle bi nga xam ne moom la am si réew mi saa yooyu déggee discours am laata muy nekk xalif sax discours ba nga xamante ni buy dajale jullit ñëpp la waaye itam discours la ba nga xamante ni discours kilifa la si kaw njabootam koo xam ne mu ngi leen di bàyyi xel di leen tëgg bët saa su waaye itam discours koo xamante ni saa su nekk yitteem mooy fex ndaw ñi am si la nga xamante ni si lañu si la ñu nekk ndax dégg nañ keroog bi ñëwee dina bàyyi ñu leen di ziaraat bu baax euh, projet bi nga xam ne dëkkalaat na ko jëm si tool yi bàyyi mu jëm si wàllu mbay ak ak ak ak agriculture ak yu yu yu yu demee noonu waaye itam saa su nekk bu toogee comme li ñu doon wax léegi ak politique yi dinañ dégg discours bi nga xamante ni moom lay moom lay yëkkati sama question mu ngi ñëw te loolu dafa nekk loo xamante ni actualité la parce que tamit réew mi waruñu nangu ñu ñuy jël en otage saa su ne nit ñi dañu war a liggéey nit ñi dañu war a daani seen doole nit ñi dañu war a jëli seen ay doxi seen ay soxla waaye fa tabarakallahu saa su nekk rek benn groupe de personnes pouvoir comme opposition bëgg a ŋànk réew mi saa su nekk di indi ay détails yi nga xamante ni ñu bëgg a liggéey du ñu liggéey léeg-léeg sax nga koo xam ne day am rendez-vous hôpital du mën a dem ndax xat-xat si tele bi dóorante la seen jàppal bàyyil si ay nit ñoo xamante ni ñii ñoo yor réew mi war ko doxal nit ñi war si gis seen bopp tamit ak lu mën a xew te loolu mooy dëgg ndax dañ leen jox réew mi ngir ñu liggéey ko sénégalais gis si seen bopp si anam yëpp nag ñii itam ne dañu bëgg a yor réew mi ndax jàpp nañ na ñii ni ñu ko yore euh, du noonu ñoom itam dañu am dañu war a am preuve de responsabilité fexe lépp itam ñu teg ko ci yoon ndax bu fekkente ne da ngay yàq yaakaar naa ne boo fi ñëwee itam doo fi def lu jag bu fekkente ne itam ci fi nekk da nga ne deful lu jag te àndu leen du ngeen waxtaan yaakaar naa ne euh, du jëmale réew mi fenn dama dégg benn discours ah Ahmed ko moo nekkoon ancien premier ministre bu Côte d'Ivoire yàlla yàlla jërëm ndax jullit la woon mu wax ne yéen jeunes yi yéen laay waxal bu problème amee ñun suñu biir bu ñuy waxtaan si kaw bu ñu leen woo du ngeen ko yëg te dëgg la loolu mooy dëgg waaye bu coow amee si suuf dañ leen di woo ngeen yëg ko indi attroupement coow li nekkul ñun ñu toog suñuy kër bu demee ba coow li seddaat ñu yéegaat si kaw bàyyiwaat leen si suuf jeunesse bi nañu bañ loolu moo xam su ma mën a jógee pouvoir opposition encore une fois ku fi mën a wax def leen nangam génn leen bu kenn nit nañ tal liggéey nañ tal daani seen doole waaye ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ne mën nañ yor réew mi ñii bëgg nañ ñii ñoo ko yor ñoom ñëpp li leen war mooy rafetal te loolu moom mooy dëgg ñoom moomuñ ñu suñu ay carte la ñu yaakaar gannaaw ndogalu suñu borom subhanahu wa taala kon nañ ñu jox cër nañ ñu respecté nañ ñu wekk fegal ñu fitna fegal ñu coow fegal ñu ay ay ay ay ay ay ay problème ya nga xamante ni ëllëg ñu xam fu ñu koy fu ñu koy waxee sëñ Abdul Ahad radiyallahu taala anhu doon na wax ne loo mën a yittewoo lu ne te amoo jàmm bés boo ko téye itam di nga ko petit na njukk dem wuti jàmm ba noppi daal di ñëw daal dee daal dee daal de yeggali loolu li taxoon ma doon waxaat loolu rek doon si taxaw mooy que ne nit ñi gën a bàyyiwaat xel ñu xam ne Sénégal ñoo ko bokk réew mi ñun ñoo ko bokk te kenn mënul fexe ba réew mi ñu ne la yow yaa ko moom kenn amul xaama boobu ndax fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi jàmm ji ñu am nag di ndono war nañ fexe ba transférer ko suñu ay njaboot muy les futures générations te problème du am géej gi du déborder ni ko Saalum Saalum yi doxe tiga du toj te loolu itam ku nekk war nga koy bàyyi xel noonu ndax na rôle boobu itam Cheikh maax Mahi daf ko am ndax gis nañ taxawaayam dëgg nañ itam ay kàddoom saa su nekk mooy kàddu yu ñaax kàddu yu boole waaye itam kàddu ya nga xamante ni yuy defar la sama question nag mooy tey jii nii conférence boobu naka lay demee ndax euh, moom cheikh bi moom moo koy def hormis li mu discours bi nga xam ne ñu ngi koy xaar si cérémonie officielle bi ak conférence bi ak naka lay tëddee ndax panel lay doon wala benn conférencier lay doon programme bi nan lay demee bu boobaa incha allah. waaw macha allah Oustaz Hassan ci question bi am na solo lool conférence bi Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Ali Cissé porte parole xadara bi moom moo koy def. ndeysaan moom moo koy def. wuutu ci sëriñ bi ndax lépp lu muy def ci ndigalu sëriñ bi la. waaw moom wax dëgg yàlla am. macha allah dafa. fas yéente kóllëre goo xam ne ni ak jamiyatu ansaaru diin mhm. nekk liggéey kat ci xadara bi comme ni nga xam ne magam ju sell ji imaam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé noonu la mel ci xadara bi moom tamit noonu la mel macha allah ay sang lañ ñoo xamante ni heure bu nekk rek dañ lay gën a ñaax ci nga bëgg Cheikh Ibrahima Niass dañ lay gën a ñaax ci nga bëgg lu baax dañ lay gën a ñaax ci nga góorgóorlu macha allah ci loolu conférence bi moom journée culturelle Cheikh Ibrahima Niass la ndax ci 8 novembre lañ ko daan def mu nekk anniversaire Cheikh Ibrahima Niass juddoom mhm. ci weeru tubaab. Mhm. Euh, yàlla def na at yi yëpp moom moo koy def ren ñu dugal ko ci biir ngan gi mu gën a nekk loo xam ne dafay gën a yaatu. Mhm. ndax sëriñ bi daf ñoo ñëw seet. moo tax duñ ko bugg sonal heure bu nekk ñi ne ko mu génn nangam ak nangam. ku xam sëriñ yi xam ko ci bëgg lu baax. xam ko ci bëgg ndaw. xam ko ci bëgg développement Sénégal. ci développement boobu li ma gën a neex ci Cheikh Mouhamadul Mahi mhm. moom mooy ne dafay jiital Kaolack mhm. teg ci Sénégal teg ci Afrique teg ci àdduna mhm. dañu mos a ànd entre parenthèse euh, euh, daf ma mos a yóbbaale parce que sa moroom ngay ànd ak daf ma mos a ci tukkeem biñ demee ñu gis train ñu wàcc Maroc train bi rafet wàcc ci aéroport bi dugg ci kii bi mu ne ah Seck lii de xaw ma kañ lay am Kaolack est-ce que ma ne ko dina fa am gannaaw yaa ngi koy tudd. allahu akbar waaw nga gis ne bëgg-bëggam yëpp moom dafay def aqrabu awla. c'est que moom. Euh, waaw Cheikh Mouhamad Mahi doog ma ne Cheikh Barham. Mhm. dafa dafa moderne. maanaam lu jëm si wàllu yeesal ak luy développé réew ak luy jëmale ndaw kanam daf si daf si am taxawaay bu am solo ndax barke démb gis naa ko mu ànd ak Serigne Boub si FICCA bi waar mhm. international de Kaolack di doxantu avec modestie wàccee boppam di xool di te loolu dafa nekkoon loo xam na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon def di dugg di xool yëf yi naka lay doxee ak ndax mu ngi dox ndax itam alxikmatu dallatul mu'min lépp lu baax jullit yi dañ ko war a jël te xam ne seen seen seen seen yëf la loolu dama ko si doon sof rek ma bàyyi la nga wéyal xam nga ci loolu sax laa lay gën a dëggalee xam nga moom hmm. moom nee na moom du xalifa xaadimul umma la waaye man sañu maa wax xaadimul umma man sayyidul qawmi laay wax. xaadimul umma mooy le serviteur du peuple. du peuple mooy koo xam ne wala de la umma koo xam ne dafa ñëw ngir liggéeyal xeet wi. Mm-hmm. yal na yàlla yal na yàggal liggéeyal xeet wi. amiin yaa rabbal nee na Cheikh Ibrahima Niass daf ko bindoon leetar ci biir leetar bi mu wax ko ne ko euh, nafa allahu bikal umma. kon loolu noonu Cheikh Ibrahima. yal na yàlla jëriñ xeet wi jaare ko ci yow ci yow. te loolu noonu am na. tey bëri na kuy waxtaan di def conférence. da nga tàppe dégg moom ci waxtaanam yi nga mën cee jël mm-hmm. Mm-hmm. tafsir alquran yàlla may na ko loo xam ne ci Medina Baye ba mi Medina Baye ba léegi ñetti nit la ko yàlla may mm-hmm. mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo fa mos a toog firi alquran ba mu jeex mu commencé waat ko gannaawam alxalifa Cheikh Alhaaji Abdullahi Cheikh Ibrahima Niass moo fa toog toogaayu Cheikh Ibrahima Niass di firi alquran muy jeex bu commencé ba mu jeex mu commencé waat ba mu jeex. Mm-hmm. gannaawam Cheikh Mouhamadul Mahi mii Cheikh Ibrahim Niass. xalifa mm-hmm. ah, général de la Fayda Tidiane moom la ko mm-hmm. yàlla may. ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg koo teewe ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi. may ko wér. ci conférence boobu nag Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Ali Cissé moom moo koy def. ci lan lay def thème bi mooy sifaatul murid. taalibe bi naka la war a mel. ñun de am nañ sëriñ. mais ñun ñi xool ñun naka lañ war a mel ñu changé waat suñ comportement soobu waat yeesluwaat nga xam ne sëriñ bi bu ñëwee bay dem danañu indil ay duruus yu bees yu bëree bëri bu dem yóbbaale suñ jafe-jafe yi wàcceel ñi xeewal ndax sëriñ bi fépp fu mu wàcc xeewal la ndax xewal googu moo tax adduna bi yëpp di ko ut tey ñu bari dañ lay oo ne wallaay ñee naa leen ndax Cheikh Mahamadul Mahi mi war a ñëw ci yéen te loolu kum doyu dara dootu la doy doguma la bi mooy bi mooy njëlbeenu nganam en tant que xalif bii mooy njëlbéen mu ñëw en bii mooy sax njëlbéen ma dégg xalifa général de la Fayda Tidiane muy ñëw Dakar ñi ñi ñi préparé ko préparé bu mel nii. xeetu ngan bu ñu toll ngan gu yem nii maa ngi koy doog a gis. bu ñu médiatiser nii bu yaatoo nii ñoom nag ñëw nañ fii. ku ci nekk bu mais comme niñ ko médiatiser nii. yaatal ko ba ñëpp bokk ci dëgg dëgg lii mu ngi doog a am. ndax moom la yàlla may loolu nit ku nekk nag yàlla moo wax ne mhm. innal fadla bi yadillaahi yuti man yasha mhm, ngëneel mu ngi ci loxo yàlla moo koy jox ku ko neex mhm. waaye boo seetee moom yàlla jox na ko ci ngëneel googu noonu lu doy euh, ci samedi boobu nag ak dimanche bi ak altine ji euh, moom dafay nekk ci résidence bi am na ay nit ñu bëri ñi ngi wax ne dañoo bëgg a gisanteeg kii sëriñ bi bu ñëwee am na ñoo xam ne nii ay kilifa lañ ci état ci leneen lu dul état ñooñu nag nañ jagleel ñooñu seen visite yi seen rendez-vous yi mhm. ñi jël ko waaye nag ci niñ koy jëlee mhm. par rendez-vous lay nekk mhm. nga xam ne danañ ko jël mën a may sëriñ bi tamit temps ñun ñoo ñun moo tax ñi ñëw moom bëggul ku ko may temps mu reposer ndax fii ba kenn mi ngi toog wax dëgg yàlla am du wax dara waaye nag ñun ñooy xam lan la ñu yàlla may te <laughs> li ñu yàlla may ñu nangu ko am na beneen message boo jàlle bu am solo ci ndaw ñi dama ci wax rek li Cheikh Ibrahima Niass waxoon ci ndaw ñi Cheikh Ibrahima Niass dafa waxoon ne euh, avenir yi bépp réew mi ngi dépendre ci jeunesse am inna mustaqbala kulli watanin yatawaqqafu ala shubbaanihi bal ala shubbaani almusaqafin zawil axlaaqi alhamida mu ne nag mi ngi dépendre ci jeunesse bi ban jeunesse jeunesse bi nga xam ne nii am nañ culture am nañ jikko yu rafet mhm. kon jeunesse bi waruñoo nekk loo xam ne nii képp ku bugg a xeex rek ñoom ngay for def leen xeer sànni bu daleeg bu dalut xeer bi wadd na keneen mooy ñëw jël ko sànni bu mhm. daleeg bu dalut mhm. jeunesse bi ñoo war a tabax Sénégal ëllëg te amul xeex boo mën a def ba ki fi yàlla teg nga ne dana fi jugee te yàlla waxu ne dana fi jugee amul xeex boo mën a def ba ne man damay falu te yàlla waxagul ne yow da ngay falu kon nag ñun wa kullu shay'in indahu bi miqdaar bi miqdaar ñun nañ xam ne Sénégal gi suñ Sénégal la buñ ko nangoo yàq buñ bokk ci ñu koy yàq wax nga wax bu am solo ñii li ñuy wax tey ak li ñuy wax suba toujours dafay wuute. si lu wër ñun nag Sénégal lañ am Sénégal la ñuy défendre képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal Sénégal dañ lay jàpp ne yow yaay Sénégal. ñun ñëpp nag ay sénégalais lañ. mais am réew du dem sans loi am réew du dem te amul njiit njiit bi moo koy conduire. te bi mu koy conduire ci li neex nit ñi ndax ñëppay laaj bu ñëpp di laaj kenn lañ mën a tànn kenn ki nit ñi tànn ñu bëri tànn la ne la yow la fexeel ngir yàlla boo ñëwee bul xam ne yow ñett Oustaz na ma tànn ak maa waa ma tànn déedéet waaye jàppal ne Sénégal yëpp moom ñoom laay liggéeyal fi mu nekk nii. loolu message la comme li nga wax rek. moo tax ma dugal ko ci biir. jërëjëf Cheikh Barham yaakaar naa mbokk yi euh, gis ngeen fa tabarakallahu Cheikh Barham dégg ngeen itam kàddu yi ngeen xamante ni yëkkati na ko jëmale ko ci ziyaara bi nga xamante ni alxalifa Cheikh maax yi Niass dana ko amal tàmbale ko incha allah alxames le 18 ba bésu samedi ba incha allah ca conférence bu mag boobu nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mahi si sa fa tabarakallahu moom moo ko fas yéene amal dégg ngeen itam message bi nga xamante ni jàllale na ko waaye man fi ma bëgg a taxaw tuuti rek mooy tey euh, jeunesse bi bu ma la doon laaj ban ban ban ban ban yan leçon lañ war a jàng si Cheikh Mouhamadul Mahi Niass lan nga ñuy wax maa ngi siy profité di ziar bu baax euh, Cheikh Mamour Aïssa Diop moom itam ñaanal ko yàlla ndax kenn la si faydu bu Cheikh Mamour Aïssa ku ne xam na ne Cheikh Mamour Aïssa moom suñu wëllëreel suñu xarit la suñu lépp la waaye suñu xel day dem saa ñuy waxtaanee pays ba wala Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu wala ñu tudd Cheikh Mamour suñu xel day dem si suñu sœur Mariane Siva Diop yàlla na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaare aljana si barke Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mi mu soppoon def ko si xolam itam yaakaaroon ko ndax Mariane dafa nekkoon kenn si ñun waaye itam bëggoon lool lool lool Cheikh Mamour ak Cheikh Ibrahim Niass radiallahu kon maawo du ma bàyyi ma wax leneen ma Mariane daal mu ngi noonu mu ngi koy ñaanal rek yal na ko yàlla eh, doole ay yërmande ak njëggal fa mu tëdd di ziaru njabootam gi yëpp jël loxo ziar bi teg ko ci loxo frère am Ngalandu ñu ngi koy ziar bu baax tey leçon bi nga xamante nii xale yi war nañ ko jàng ci Cheikh Mouhamadul Mahi Niass lan la war a doon ndax saa su nekk man dama ko doon déglu laata mu doon nekk xalifa yàlla da doon dogal chaque 31 décembre dama doon dem ci jotaayu Cheikh Mamour Insa mais bu ñëwoon ba jël kaddu ba def discours bi en arabe def benn xitaab si lugal arabia bu bu bu bu frappant bu am doole bu paree faram fàcce ko si olof dama naan lii de ak a neexoon ñu jël ko jàngat ko. xam la nga xamante ni moom la si moom la si wax mu mel ni kon bari na luñ mën a jànge si moom yow lan nga ñu si mën a wax euh, Cheikh Barham waaw Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass moom mooy jëmmi xam-xam macha allah mooy jëmmi njub macha allah mooy jëmmi leer macha allah ndax li may seede yëpp waxuma ko ndax sama sëriñ la mais dama koy wax wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa dafay jàngale toujours ci leçon yi muy jàngale baax na nit ñi di ko dégg dafay génn réew mi di tukki yóbbaale ma xam nga rek benn xale bu ànd ak kilifa ngeen war a dem mu defaral la yëpp yi ñëw ma jiitu ko defar yëpp ci aéroport boobu aéroport Léopold Sédar Senghor bii la ma ne ko sëriñ bi defar naa kayit yëpp pour ñu jaar salon d'honneur mu ne ma jaaruma fa fi peuple bi di jaar laay jaar allahu akbar jaaruma fa fa peuple bi di jaar laay jaar allahu akbar maa wax ma ne di ko déglu man ma sekk man kenn laa ci peuple bi ah ñu dugg enregistré jël ba di dim paasam ñu war a rang pour ñu tamponel ñi suñ passeport yi mu nekk ci rang bi ma rang bi gudd ma génn di dem di gis benn police mu ne ma eh, kay kay kay ma ñëw ma foo jëm bul ko wax ne ko maa ngi taxaw fii ah ma ne teg ko bi mu ñëwee ba egg waa ji war koo tamponel gis ko ah est gaaw ja jël affaire am lépp defar ko ne ko nang mu ne ko ma man maa bugg jaar fii nii lu waral loolu toujours daf ñuy jàngal ne nit ki doo dum dara di ko di ko di ko di ko wane. mën nga kawe lool waaye woyof lool. moom nag noonu lay def. te te bu nekkee yow daf lay jàpp comme boppam. cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass moom dong laa mu a gis ci kilifa mu taxaw ci buntu këram ne la ah yow kan ngay seet man maa ngi nii kan ngay seet man maa ngi nii. dama gis ne bëri na tey ñu bëri man sama classe gi rek yow Oustaz Assane boo ma soxla woon dama lay wax ne la jëlal audience jaaral nii jaaral nii comme ni may def maa su ma soxlaa day jël audience <laughs> loolu ah, xam nga loolu noonu mu am mu defal ñi loolu yëpp waaye loolu yëpp bu jàpp ne dara la def ñuy jàngal est-ce que leçon toujours daf koy joxe mhm. bu la gisee nga nekk jeune lim lay njëkk a wax daf lay xëetal ci boppam ñeme loola boppam ba pare bu la ñemeloo boppam nag ba pare mm-hmm. ngeen di waxtaan ñeme nga ko wax lu nekk da nga koy laaj mu lay tontu mu lay laaj dafa dem ba nga xam ne ni jeunesse bi ñoo gën a nekk ay xaritam mm-hmm. jeunesse bi lay gën di mën a waxtaanal mm-hmm. te lim leen di waxtaanal heure bu toogee rek dañuy jàng ay leçon ci moom amul dara dara dara bu toogeeg yow lum gàtt-gàtt bu la nettalee dara rek yow doyal nga maa ngi dem benn xale dafa mos a ñëw ne ma man de Pape Makhila bu ko gis est-ce que mën naa mën naa nekk ma ne ko loolu du benn problème. ndeysaan mu ne ma ma ne ko waaw. mu ñëw ma ne ko bés sangam man naam dana ma fekk Medina bés sàngam fekk ma Medina mu ñëw ooma mu ne ma man ñëw naa Medina ñu dem ba ci buntu kër ma ne ko sëriñ baa ngi mu ne ma pap ma xalifa bi ma ne ko ah fekkee ne am na beneen xalifa kon mën naa am man la waaye kii mooy xalifa ndeysaan parce que moom gis na ne man sax bi ma buggee jot téléphone ni mu jafee <laughs> waaye bu ñëwee ñu ne ko buntu baa ngi nii yaa ngi nii waajaa ngi nii moom ba léegi mën mënta imaginer loolu ba pare nag li bootu ci yow ci àdduna ni mu yem nga wàccee sa bopp wan ñëpp ne lii leçon la dafay jàngale jàng jàngale rek lay def te jàngale boobu ci ndaw ñi la ko njëkkee nee na jeunesse bi damay xool ndax man ngeen a changé man ngeen a soppi bu ngeen ko bëggee mu ne ko wallahi ñes boo ñu ñaanalee ñu soppi te te gis nañ ak coppeeku ci ñun ñu bëri ci ñun ndax ci ñaanam ak bëgg-bëggam ak namm-nammam ci umma bi te Cheikh Mouhamadul Mahi xoolul ne yow taalibeem nga xoolul ne yow taalibe keneen nga au contraire taalibe keneen la gën a mën a jëflanteeg ci taalibeem allahu akbar taalibe keneen nga gën a mën a jëflanteeg moom daal comme ni mu tuddee boppam xaadimul umma rek mu mel ni kon umma islamique bi moom moo ko ñor ndax tey li may wax ñi yàgg déglu discours am dinañ ko seede Cheikh Mouhamadul Mahi saa yoo dégloo discours am toujours li mu wax mooy problème musulman yi problème jullit yi problème yi nga yi ñu nekkee nan la ñuy def bu wutal ko ay solution nan la ñuy def ba booloo nan la ñuy def ba doon benn nan la ñuy def ba kàddu gi doon benn te loolu moo nekkoon mission Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu itam moo nekkoon mission Cheikhu Tidiane radiallahu anhu moo nekkoon mission Mawlana Cheikh Ibrahim sahibul fayda atijaniya radiallahu taala anhu mu mel ni kon tey man na tuddee boppam xaadimul umma maay itam man mën naa ko tuddee l'unificateur ki nga xamante ni dafa ñëw pour boole nit ñi ci li nga xamante ni moom moo di moom moo di essentiel te mooy ñun ñëpp ñu xam ne ay jullit lañ ñu ngi bokk si njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu mel ni loolu nga bëggoon dund Cheikh Barham alhamdulilah waaw loolu rek lañ doon bëgg junj yow yow yow yaa ma gën a xam kan mooy Cheikh Mouhamadul Mahi ndax ndax képp dañ yàgg di ko taataan wallahi ah. sopp ko lool lool lool ndax mhm. modestem ndax man tawaada alillahi rafa'ahullah moom mu ñëw wàccee boppam ak ni ko suñu borom subhanahu wa taala joxee cër xam nga euh, toroxlu ak toroxal sa bopp bokkul toroxlu mooy yàlla yenn la ba nga diis waaye nga woyofal ba mu woyof mhm. waaye toroxal sa bopp mooy yow yoru woo dara bëgg ne gànn mel ni lu kenn xamul loolu darul ki nga xam ne moo du Cheikh Mouhamadul yi Niass te itam kilifa diine yu bëri si réew mi noonu la ñu noonu la ñu mhm. mel mhm. waaye plus particulièrement moom ndax woyofam waaye xam-xamam loolu itam lu jar a taxaw la ndax tey yaa ngi wax tafsir bu mu def te yaakaar na bu mu doon def fële ca Medina Baye te yaakaar naa bi mu nekkee xalif itam dana woon da kay da kay continuer suma juumul waaw tafsir boobu yàgg na koo def yàgg na koo commencé bi mu koy commencé mhm. mi ngi ko commencé ci Mahad El Hadj Abdallahi ci Mahad bi nga xam ne moo nekkoon moo nekkoon directeur bi foofu mhm. foofu la ko commencé bi mu ko commencé jamono boobu ci ndigalu Cheikh Ahmed Dam yal na yàlla yokk leeram amiin yaa rabbal alamin euh, moom mooy waajuru euh, Cheikh Mouhamad Niass bi nga doon wax. waaw waaw waaw. Cheikh Ahmad Dam bi mu déggee tafsir bi ñu enregistré ko ci cassette tegal ko ko. Mhm. Cheikh Ahmed Niass loolu mën na koo seede. man bokk naa ci ñu enregistré woon premier tafsir ba ca école ba. Mhm. bi ñu dogee weeru koor la bi ñu dogee ma dem ziyaare ji maam Dam. Mhm. ma teg cassette bi ci salle bi ma koy dégg. may duggaaleeg moom ci biir néeg bi bi ma duggee mu ne kii kan la bàyyi ma ne kii de sëñ Maaxi la. est que mu ne ah sëñ Maaxi moom dafa dégg olof de lii de nañ ko indi ci bayal bi ñëpp jëriñu ci. ndeysaan. ndax li tax mu def loolu xam ne kii xam-xamam mooy lan. sëriñ boobu nga xam ne mooy tafsir tafsir boobu bi mu ko commencé léegi léegi mu mat ñaar fukki at. waaw ëpp na fukki at ak juróom moom. léeg mu mat vingt ans. léegi mu mat vingt ans. macha te du benn kaamil tim na ci tafsiragum. te ba léegi ci gàmmu gi li muy xat-xat-xat mi ngi génn di tafsir macha allah parce que nee na jaamu yàlla yi buñ ko yaakaaree du teg buntam allahu akbar kooku xam-xamam lépp loo ci wax doy na ndeysaan boo ñëwee ci tabeem moo lay yëkkati may la nga commencé di ñaan di wax mu ne boo ko waxut yow keneen du ko xam wallaahi fàtte na lim jëflante yow ndeysaan ku yiw ku sell ku baax wallaahi lazim macha allah ci mbaaxaayam boo ñëwee du ko wax dara daf lay déglu déglu déglu bu baax lu mu am ne la bisimilah mu ngi ne maanaam ba yàlla ñëw lu yàlla indi ñu bokk. ndeysaan yàlla nag man ngaa toog comme ça benn ngëyeen ngëyeen càngatam bi neex rek mu ñëw yàlla indi enveloppe bi 10 millions ñu ne jox leen ko. ndeysaan xamul lu ci nekk jéemut a xam lu ci nekk buy maye boobu Cheikh Ibrahima Niass la ci doon. Cheikh Ibrahima Niass yonent bi la ci doon sallallahu alayhi wa sallam amul dara loo xam ne ni te kenn rek nag la Cheikh Mouhamadul Mahi bëgg kenn rek mooy nawleem moom mooy Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu mooy juram radiyallahu taala anhu mooy sëriñam itam mu mel ni euh, daanaka yëg si nañ fi nga xam ne si lañ war a yëkkee jataay bi ndax euh, waxtaane ko xajul si ay minutes sa xajul si waxtu xajul si émission hmm. moom Cheikh Mouhamadul Mahi Niass ak nganam ñi nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy waaj incha allah bara xam dañ lay bàyyi rek nga ñëwaat si ngan gi kañ lay doon ak programme bi incha allah ak sa kàddu yi mujj rek bu ko defee incha allah ñu daal di yëkki jataay bi incha allah tafadal waaw programme ngan gi moom liñ liñ njëlbee woon noonu liñ commencé woon ci loolu la ñuy mujjeewaat mm-hmm. mooy suñ sëriñ mooy ñëw duñu wax Cheikh Mouhamadul Mahi mooy ñëw waaye dañ naan Cheikh Ibrahima ñees mooy ñëw Ndakaaru te Cheikh Ibrahima Niass ñëwut waaye ñun ñoo ko wax ne ko dañoo bëgg nga ñëw waxuñu dafa bëgg ñëw kon Cheikh Ibrahima Niass moom di ñëw nañ leen ko teeru wàccee ko wala yéegal ko ci maqaamaam ngan gi alxames lay nekk le 18 novembre lay quitté Medina Baye egsi fii Dakar ñu ngi woo taalibe yëpp lu ko commencé ci ndax dana danañ am tout changement ci ci discours yi ndax ñun école Seyda Mariama la Niass lañ waxoon xaadimatul quran yal na yàlla yokku leeram mais gannaaw Cheikh Mouhamadul Mahi toujours def ñuy wax nañu nañuy topp ndigal lu état bëgg nañu wax lool état nañu autoroute bi ak mbooloo mu bari ñooñ mën nañoo tardeel ñoo nga xam ne dañoo war a liggéey. dëgg la dëgg la te sëriñ bi timit wax dëgg yàlla. bëggul lor kenn bëggul lor kenn. ñu ne kon léegi dañuy jël ci suuf pont kii bi euh, yaraax. front de terre bi. romb buntu Walfadjri ñëw rond point Liberté 6 kër Serigne Baba Lamine Niass mi ngi foofu. waaw ñu teeru ko foofu noonu. mu wàcc saafu wanteeg rakkam saafu wanteeg représentant su paree. añ foofu doog a dem ci dalam macha allah ak délégation bi muy àndal al imaamul akbar mu ngi ci imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé ak ñi nga xam ne ñi ngi ànd ñëpp xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi mhm. Cheikh Serigne Mbaye Niass mu ngi fi mu ngi dina bokk ci délégation bi eh, Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu alhaaj Mouhamad Zeynabu mi ngi ci mhm. ah sunu waa kër maam Serigne eh, Baye Mahmoud ñi ngi ci mhm. sunu waa kër maam Baye Adi ñi ngi ci suñu waa kër maam Cheikh Ahmed Tidiane ñi ngi ci waa kër Thierno Assane Deme waa kër euh, euh, maam Ibra Fall ak ñeneen ak ñeneen ponki pay bi yëpp lañ bëgg mu ànd ak waa kër maam Amady Boucar ñoom tamit ñi ngi ci alxames boobu buñ ko teeroo ba mu ñëw ba dugg ci dalam boobu jeex na vendredi ba mooy le 19 ci la ñuy def xadara bi ci stade municipal bu parcelle ñi ngi ci oo nag mboolem jullit vendredi 19 à partir 17 heures bugg nañ daal kuy yéex moom dootu am place. macha allah waaw parcelle moom xam naa ne naq dinaa dem temps yi waaye vendredi moom. lay gën a kii bu ñu nag bàyyi ñu si ngi ñëw ku teel a jóg daal boo tardé yow a. yow looy tàggoo Cheikh Barham waaw li may tàggoo mooy ne damay gërëm groupe GFM. Mm-hmm. ci seen liggéey bu rafet. Mm-hmm. Eh, di gërëm tamit ñi nga xam ne ñi ngi jàppale wante ñun ci liggéey bii nii. Mm-hmm. bokk na ci mi dina Baye. bokk na ci président ah, Pape Demba Biteye. bokk na ci monsieur le maire Mouhamed Ndiaye Rahma bokk na ci Alkarim ak ñu demee noonu. Eh, suñu limee rek dinañ juum waaye nag ngan gi ñu ngi ci oo kiñ ci njëkk a jiital mooy per de la nation. monsieur le président de la république monsieur mmh. Macky Sall mmh. ndax kii ganam la mmh. ndax xam nañu wëllëreem ak moom sëriñ bi dafa mos a dem Fatick gàmmu daayira bi mu doon demal gàmmu ñu ne ko ñaanal yàlla Fatick dafa fatigué mooy leen danaa leen ñaanal yàlla ba lu ñuy séddale fii lay jugee moo tax boo ko waxee mu ne la man président Macky Sall la yàlla moo ma wan ci samay ñaan ci moom. macha allah kon kooku te ni mu ko defee ci président Macky Sall noonu la ko loolu la koy defee ci yu bëree bëree bëri. jërëjëf macha allah mu ñaanal la yàlla nga dem affaire bi ñëw nga ne ko ah, bi yaa ma ñaanal mu ne fekk ndeysaan am na kersa diggante mag. macha allah kon loolu la. ñu ngi ci oo ñëpp. Mm-hmm. ngan gi daal nganu ñëpp la. incha allah Cheikh Lislam mooy ñëw. képp nag ku bëgg ñun. boo ñu mm-hmm. soxlaa ñi ñëw ci yow bu bàyyi di ñëw na nga ñëw ci ñun macha allah rek boo ñu soxlaa ñu ñëw ci ñun amuñu ku bëgg sëriñ bi ñu bëgg la ndeysaan loolu mu nekkoon suñ kàddu yu mujj jërëjëf ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di oo daayira yëpp ak muqaddam yëpp fuñ mën di nekk te ñoom ñëpp mobilisé wu ne ñun bés bi suñu bés la macha allah man oowuma leen téléphone waaye ñoo may oo téléphone lu ñu war ci bés bi macha allah conférence bi nag mhm. dañ ko journée culturelle bi mhm. dañ ko daan def chaque année am ñu ñu koy darajalee mhm. journée culturelle boobu ren ñu ngi ko darajalee président Pape Demba Bitèye. Bitèye waaw euh, directeur Sénélec. Sénélec waaw. ñu ngi ko ñaanal yàlla tamit. amiin li ko yàlla dénk yàlla may ko ci ndam yàlla yàggal gën a taxawaayam ah, ba pare jiital bi ñu ko jiital. Hmm. ci département bu Kaolack yàlla na balaa treize yàlla na it nañu wane ne moom gañe na. incha allah moom kooku moom lañ jiital. ci hmm. parrain yi. Hmm. ak sunu yaay Seyda Maam Roqi Bintu Cheikh Ibrahima Niass. ak ancien président Ansarou Dine président Mon Niang. ak Seyda. yaa nday màgget mhm. ñooñu noonu ñëpp macha allah màgget ñaa mhm. ñoom ñooñu ñëpp lañ boole jiital leen ak sun papa imam Jimlo. sun papa imam Jimlo nag. Mhm. yal na yàlla yokk leeram. amiin ndax sun papa imam Jimlo dafa nekkoon nit koo xam ne ku doon fuglu bés bii ñëngu xalifa bi la. macha allah tey yàlla def na nekk fi waaye njabootam mi ngi fi. amiin amiin ñu leen di ñaanal yàlla. kon kàddu yooyu la ñuy tàggoo. ñu ngi gërëm waa GFM yëpp. ci seen taxawaay bu rafet. ndax biñ ñëwee wax ak yéen ci ngan gi dañ leen sun sunu yëf la. jërëjëf ngeen nañu danañ mobiliser télé bi rajo bi quotidien bi sit internet bi te li ngeen wax yëpp def ngeen ko yéen a ngi bërki démb France lañ ma wooyee ne ma euh, seen appel baa ngi nii di jàll ci TFM kon sant yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Barham ñoo duppee suñu bopp le miroir du le miroir du Sénégal seetu Sénégal kon lépp loo xamante nii askan wi bëgg nañ ko këru dina yi bëgg nañ ko bu ñëwee fii ci groupe Futur Media rawatina télévision Futur Media fa tabarakallahu dañ ciy def seen kem kattan ñaaneel borom kër gi xaaj Youssou Ndour ak ñi koy jàppale si liggéey bi xaaj Ndioga Ndour directeur télé bi xaaj Birane directeur GFM ak buuba mi yor programme bi ak ñi leen di jàppale ñëpp yàlla defal leen jàmm si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ko Cheikh Mamour Insa ñu ngi koy nuyu di ko ziar Cheikh Mamour Insa Diop ñaanal ko yàlla defal gudd fan euh, maître Nafissatou Diop Cissé notaire moom itam suñu yaay la yàlla na ko yàlla gën a dëgëral si daraja Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziar bu baax euh, ki ñuy wax euh, Adja Oumou moom suñu yaay la ak njabootam gi yëpp ñoom maam Khady ñoom Khadim Ba Loka Afrique ñaanal yàlla defal leen jàmm si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam Cheikh Niass bu Papa daam ñas wax naa ko tëddit bi moo fi jaar ñëpp nee nañ rafet na Cheikh Dame bëgg na Cheikh ñas euh, bu Papa Cheikh Mouhamed ñas bu Papa Dame Niass ñaanal ko yàlla ak njabootam soxna Ndey Awa ñoom Ahmad ñoom Awa ñoom Habib ñoom ñëpp ñaanal leen yàlla fa tabarakallahu ma sha allah ziar bu baax euh, euh, Marie Ndaw di soxna si ab Ablaye euh, Seydou Sow fële ca Kaffrine euh, soxna Mari Ndaw ñu ngi koy ñaanal di euh, sœur si Cheikh Abdourahmane Ndaw Al Karim ak borom këram monsieur le ministre Ablaye Seydou Sow ñaanal leen yàlla yàlla jàppal leen si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziyaaraat bu baax Cheikh Pa Adama Ba fële ca France ak soxnaam soxna Nday satu Ñas ak seen doom Mouhamad Jamil ziar bu baax waa régie Maawo Cissé ñoom euh, euh, Fatima Evans ñoom fa tabarakallahu Vieux Diouf ñoom Aziz Soumaré ak ña fa nekk ñëpp ñaanal leen yàlla yàlla defal leen jàmm si barke Seyduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kon tey daal waxtaan bi Maawa may nañ ko Cheikh Pa Adama Ba ak soxnaam Adja Nday Assu Ñas fële ca France ak Cheikh Abdou Karim Euh, Abdou euh, Cheikh Abdourahmane Ndaw Alkarim Cheikh Abdourahmane Ndaw Alkarim ñaanal njabootam gi yëpp ñoom soxna yande ñoom Adja Binet ñaanal ko yàlla Adja Binet moom suñu Binet la ñaanal ko yàlla defal ko jàmm si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñaan dafa teew ñu kenn fa tabarakallahu ziar bu baax euh, Adja Mama Rakki Ngaydo Mama Rakki Ngaydo ñaanal ko yàlla moom itam ak doomam Rasoul si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam Ndiaye Rahma wax nga ko Mouhamad Ndiaye Rahma ñaanal ko yàlla moom itam yàlla defal ko ndam ziar bu baax ku ñuy wax Adja Mayram mu nga fële ca Daabali gannaaw Kaolack doom sëtam dañ ma tuddee benn euh, sëtam démb sama chauffeur amadi Diallo moo ma ko tuddee fële ca Daabali ziar ko ak soxnaam Penda ñaanal leen yàlla defal leen jàmm waa Daabali Adja Maydam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal leen yàlla euh, Xasan mu ndaw moomu yàlla na ko yàlla def mag def ko magul islam. si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yaakaar naa loolu lañ waroon tàggoo rek fa tabarakallahu ziar bu baax euh, Pape Demba bi tey directeur Senelec ñaanal ko yàlla defal ko ndam ci barke faydu bi daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Cheikh Abdourahmane Ndaw mi ngi noonu yaakaar naa ñëpp bëgg nañ fa tabarakallahu Pape Adama Ba ak soxnaam fa tabarakallahu Seyda Nday Ajisatou Niass Mouhamad Jamil fële ca Paris yal na yàlla dolli jàmm yàlla nañ dem si bés bi ak jàmm lépp lu mu fi ñaan ko yàlla nangu sañ bi sa jàmm bàyyi fi jàmm réew mi am jàmm si daraja yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba ilaa yawmi din salaamun qawlan min rabbir rahim yàlla nañu ko yàlla defal kon ba al aljuma ak jàmm si beneen jataay incha allah wàcc leen ko le 18 lay tàmbali ba le 21 wala le 20 incha allah aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu leen ñu fàtte si ñaan yéen itam Seyda Fat Bint nuyoo baa ngi noonu jërëjëf